ci ñaari fan yi ñu daal di génn ab taw bu bari daal di wàcc ci Sénégal ah, ba tax ay gox ak gox goxaat yu bëri daal di nekk di dund li nga xamante ni mu di mbënn bu metti ci xayma rek juróom benn nit daal di nañ ci ñàkk seen bakkan ay yàqu-yàqu yu bari ñu daal di koy nemmeeku ba tax askan wi ñoom daal di nekk ci njàqare ak tiis ci kaw loolu ci la njiitu mi daal di déclenché li nga xamante ne nii moo di plan Orsec ngir daal di mën a taxawu ñëpp ñi nga xamante ne nii daal di loru ci boobule mënd ci kaw loolu sax kii di responsable convergence boo ko gis-gis moom jàpp ne sax boobule plan Orsec rek daal di doy ngir mën a xeex li nga xamante nii mooy mënd mi moom dafa jàpp ne sax ngir mën a xeex li di mën ni faaw njiitu réew mi daal di tas yenn ci ay institution bokk na ci au conseil des collectivités territoriales conseil économique social environnemental ak li di commission pour le dialogue des territoires moom njiital boo ko gis-gis na njiitu réew mi noonu la war a daal di doxalee gannaaw nam ko defee woon ci atum 2012 ay supprimer li nga xamante ni nii moo di Sénat bi mu daal di woon jiite moom njiitu réew mi ci atum 2012 Sénégal doon dund lu métti ci wàllum inondation ci ab voyage bi mu daal di jóge woon mu daal di xam ne ni dina daal di tas eh, lii di Sénat toll ci juróom-ñetti milliards yi nga xamante ni woon ni daal di woon nañ koy jagleel boobu lekk moom njiitu réew mi daal di xamle ni dina ko def ci wàllum inondation yi ngir mën a xeex li nga xamante ni moo di mbënd mi. moom ancien maire bu Dakar daal di ne sax jamono ji noonu la njiitu réew mi war a daal di eh, doxee ndax li nga xamante ni moom la ñuy dund ci mbënd mi ci jamono jii moo gën a metti fopp ci atum 2012 li nga xamante ni ci wàllum mbënd daal di woon daal di woon na fi am. mom njital boko gis gis lenen lu mu daal di xamle ci ab communiqué bi nga xamanteni ni daal di nu koy bokku na ci drame wala sax metit yi nga xamanteni ni askan wi ñu ngi koy jankontel ci walum mbënd mi ak covid 19 bi daal ci dole ko walum commit daal suxé fi ci sénégal mom mu japp ne sax lolu dong mo nekk jamono ji ay solution ngir mëna xex li di mbënd mi mom ci kaw lolu sax di ñaax ki di njiitu rew mi Macky Sall mu daal def li ñu mel ngir mëna a abréger li nga xamanteni ni wala sax wañi li nga xamanteni ni mooy jafe-jafe yi askan wi di dund